mais papa contre am ak Balla Gaye li bari na lool nee nañ Boy Niang moo Balla moo gën a neex yooyu yooyu ay Aziz Ndiaye la koy wax pour euh, pour mafia ñu. da leen bëgg a gëlëmal daal. pour nga a ngaa ko Sénégal. maa ngi la ko wax tey Balla Gaye gis gën a neex daan. mais père dafa am benn wax bu mu. ba muy bëre ba muy bëre ba la Amath Sénégal yi ba muy bëre yëpp yëpp si man la ko entraîné. Balla Gaye gën a neex a daan ci bëri Sénégal. parce que Cheikh na sax saat bu maa la ko wax. mais père dafa am dafa am benn wax bu ma la déggoon nga wax ko per dama la déggoon xool nañ ko fu nekk gis ñu ko. bu amee dix bu amee cinq minutes bu combat boo ñaa amee cinq minutes yàlla na ma yàlla rey. déet. non man kay maa wax loolu. déet père déet yow kon xoolal waxuma mer xel laa lay waxee ak xol. dëgg dëgg ak dëgg laa lay wax si kàttanu suñu borom. nga ne combat Boy Niang ak Balla Gaye bu matee minutes. yàlla na ma yàlla utu fële yàlla nañu daan Boy Niang. mais père. père booy xam nañ ko bu ñëw xam nañ loolu bu wóor. dafa am dafa am wax bu ma déggoon mu waxoon ko. attention le promoteur ma ñàkkul fayda de. du yéen jotoon ngeen avance. gas waaw mais Gaston ñàkkul fu la de. Gaston amul borom milliard bu ko mën a manipuler. waaw ah, loolu moom am na moom. rek ne démb tey soog ñëw. la. doo ko imposer si lu mu bëggul. dëgg la doo ko defal mafia doo ko tegal affaire doo ko tegal ay nijaay ay ay ay ay maam. dëgg la gëmul loolu de léegi la nekk seen maam mais ñoom ñëpp bañoo bañoon. dëgg la bu bu mu décidé si la la mu ñëwaat. dëgg la. ni dëgg li mu li ko yàlla may da ko ko nangul. Gaston moom moom làmb Sénégal. mooy jiitu promoteur yëpp. waxuma la làmb Sénégal Gaston ko moom moom la rawaani Sénégal àndal ci làmb. comme boxeur boobu mu ànd doon kii nu mu bokk ànd amoon la boxe américain amatul la est-ce que du père da ngaa boo boo ñëwaat baax oh, waaye yow man damay ngaakay wécc. est-ce que. ngaaka ñooy def ay koo xam ne yow xamoo dara ci laam Aziz yi ma yor yàlla na ko yàlla may. mais xaalis bu doon daan mbër. ah. xaalis waaw ah? kon Macky Sall am mbër. dëgg ndax Macky Sall moo ëpp kii xaalis Abdoulaye Wade mais per per dama bëgg ñu dellu si tuuti. parce que dama waa du mën a yàgg d' accord dama la mës a dégg nga ne sa doom du mës a bëgg doomu Double Less yàlla na ko yàlla yërëm. waaw man su xoolal génne kii laa ko wax. mosuloo ko wax. mosuma ko wax dama ne la. Ah ñuy def. Mhm. booy ñaa. Mhm. Double ak Mbaye ñoo si njëkk. Mhm. waa lamb boo boo daanu Sa Thiès daanu Balla Gaye ban chance foofu laa bëgg a ñëw nga bëgg ak Sa daan ko. sa déwén jële wala ñëw mu daw. kan Balla Gaye. waaw ne day te moo indi rakk ji ba si biir bi ko ne booy bi tëttalu di dof dof lu di ma laaj na jël Sa Thiès sama rakk ngi nii bu ko daanee moom bëri moom xool leen Lamine Samba ak moom. est-ce que du mbaadu fi ngeen jaarale. Sa Thiès fi ngeen nar a jaarale Balla Gaye. dama ne ne combat bi moom matee cinq minutes yàlla na boo ñaa daanu. mais père li nga wax fan nga ko teg. li nga wax parce que moo gën a niil si mbëri Sénégal. père loolu ñu bari oh, ko waaw di ko nangu mais man xam naa. da nga gis ay faay Balla Gaye yu bari. lu daan saakees saakees lan lay li tax nag nit ñi eh, yow laa waxal saakees ba dañ ne Tapha Tine moo gën a cuune ci. Modou Lo Modou Lo ku daan daan ñaari yoon ku daan ku ñaari yoon. <laughs>